بسم الله الرحمن بسم الله تعالى الحمد لله الرحيم الرحمن الحمد لله القائل وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله يعني جليك سلم تسنة سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokki ñu fassiyene ñoo ak yeen ci jotaay bi nga xamne amaan na tey la ko borom bi tabaraka wa taala dogal li nga xam ne tàmm nañ di ko def su ñu fi déggee ay lënt wala loo xam ne jaaxal nañu wala loo xam ne ñun gis nañu ne dafa uute ak njàngale mi nga xam ne mooy njàngale mu wér mi li ñu faral di def mooy dañuy sàkku jotaay ci imam ñu ñëw fii laaj ko ñu leeral loolu sunu kéemtalaay kàttan yàgg nañ koo def ci ay jotaay yu paase ci ay nit yu bokkul bu ñu gisee ku fi def waxtaan wala ku ci tontu ay laaj ñun ñu gis ne loola utee na ak liñ xamoon ñun sunu devoir sunu xàq mooy ñu ñëw nag def beneen jotaay topp jotaay bobu di leeral euh, sunu kéemtulaay kàttan loola moo waral jotaayu tey bi jotaayu tey bi nag li ko tax mooy darsu bi fi Serigne Moussa mujj def nga xam ne dafa aju ci wàllu asrar bu ñu ko waxee mooy secret déggoo nañu nag benn waaye wax ne secret yi daal comme boutique la warut génn léegi nag dafa mel ni génn na indi ko ci daara ji ñu di ko jàngale secret yooyu xam-xam boobu doxalin boobu naka la ko lislaam gisee dan lay peese da bind lii da ngay def xaatim yi da def nangam loola moo waral jotaay bi ak nag laafaale ci wàllu njabar ci boppam même bu fekkee ne ñiy jàngale neewuñ ne ñoom njabar la ñuy def ñu nangul leen ko bi kulli ixtiraam waaye nag ñun ñu indi ay question yoo xam ne incha allah dina jëm spécial ci wàllu njabar ana lan mooy sexra lan mooy atteem ci lislaam ndax jullit ñi am nañ sañ-sañu def ko ak yeneen tomb yoo xam ne dina ñëw ci biir loolu moo waral jotaay bi duñu guddal imaam bu fekkee jekk nga bismillah ñu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 مجموعة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا من الزيارة بتجيت الجالو جالو بي شيخ أبو بكر جالو واي بتجيتك شيخ جبريل جيوب بتجيتك نيب رك ما شاء الله دي كونتنت يب دي بيجل دي دي بيجل يب يب رك لكم شيخ أبو بكر جالو بمن مي جنتي نيك صلوا ماغ لين دي بيغي دي لين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتاجي الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله إمام نيجي أم كنت أنك أه فرصة بي أنك نانغو نيو سيقن ين وحدان بي إمام لاج بي نيجيك إندي موي أه القرآن بوهي جبر أنا لن لسي جبلو أجنكو القرآن جانغالي Souleymane jaar ba ci Moussa jaar ba ci yeneeni place alquran di bëril di faral lu muy tudd baat boobu njabar bu ko alquran waxee ana lan la ci jublu barakallahu fiik alhamdulilah wa aleykum assalaam wa rahmatullah macha allah imam ñi ngi am kontaan na kii euh, fursa bi ak ci nangoo ñëw seq ñun waxtaan bi imam laaj bi ñuy njëkk indi mooy Euh, alquran bo waxe njabar ana lan la ci jublu ak ni ko alquran jangale ci sulayman jaar ba ci muusa jaar ba ci yeneeni place alquran di bëril di faral lu muy tuddu baat bobu njabar bu ko alquran waxe ana lan la ci jublu barakallahu fiik wa cheikh jibril ni ngi lay ziyaare waaw jibril euh, بلغ القرآن من جسن جبر دنجي تعريف دنجي تعريف وطرس لما تعريف جبر جبر دفع أم تعريفهم مي دفع أم دفع دورهم دفع أم دوره أه، دوره موي موي موي رولم لم موي رولم لم موي سببهم ابن قدامة المقدسي موم dafa am taarif boppam arrazi am taarif boppam ibnu qayim ñoom ñëpp ñoom ñëpp nag ñu daje ci benn taarif boo xam ni nga xam ni ñëpp ko bokk maanaam kii def naa ko ci mel ibnu qudaam def naa la njënrat daal mooy عقد ورقا وكلام يتكلم به الساحر أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في قلبه أو في عقله من غير مباشرة له لجي أي بس أي موت يو خمي جبرك بموك يوخ ديكو تدو ولا مبندكو ولا مو إعمال لو خمني Euh, jëf am lu mu liggéey loo xam ni dafay jeexital ci yaramu ki njabar wala mu jeexital ci xelu ki wala mu jeexital ci xolu ki njabar ci loo xam ni duñ gis ci loo xam du nekk mubashar maanaam du ko gis du nekk loo xam ni mubashir la léegi taaifaat yooyu yëpp am na yenn taaifaat yoo xam ni euh, euh, maanaam dafa dafay dafay yàggal وانت دايي دايتي من جبر اتفاق بين ساحر وشيطان مانام اك بيبو لو غو خامني نجبر كات بي اك شيطان نيوم نيوي نيو ام بن جوبو بو ني ديف دا فا ام بن ديبو بن اكور بو ني بو ني غير على ان يقوم الساحر بفعل بعض المحرمات او الشركيات في مقابل مساعدة الشيطان له وطاعته فيما يطلب منه loolu moom maanaam boroom xam-xam yëpp ci d'accord maanaam ak dëppoo la goo xam ne diggante njabarkat bi ak seytaane la lu tax njabarkat bi bala koo seytaanee defal li mu bëgg njabarkat bi day def ay ay muharramaat yu araam yoo xam ne ay shirkiyaat la yu bon juutal fatiha juutal alquran jël jël yu bon yu salte di ci bind alquran jël alquranul karim di ko teg ci ndëgg ci ndëggul nagum dëgg kaamil alquran jël kaamil alquran sànni ci mbalit mi moom ci boppam mu rango ay sobe yu baree bari di ko jullee wala muy julli du jàpp nekk maanaam wala wala wala muy dunde nekk janaba janaba di ko jullee janaba lay julle janaba lay jiite janaba lay defee loolu lépp nga xam yooyu yëpp da koy génne ci diina si léegi nag loo gën a def lu bon seytaane di gën a di di la gën a defal li nga bëgg parce que loo gën a def lu bon rek seytaane di la gën a defal loo bëgg parce que ay wasaa'il la maanaam lépp loo xam ne lu bon rek lépp lu bon lépp loo xam ne boo ko defee luy merloo yàlla rek seytaane da ci da ci d'accord xam nga julli tay ko bañ bañ a tay ko bañ am bañ a bañ a bañ a nekk nekk janaba wala ngay rey rey loo xam da koy rey di ko rey ci turu seytaane doo ko rey ci turu yàlla la nga rey boo ji nga am foo ko sànni foo ko yóbbu foo xam ni seytaane moo koy noonu la koy bëggee di wax ak biddéew yi di sa jootal biddéew yi léeg-léeg seytaane am na ci nit day sëy ak doom bu jigéen day sëy ak doom sëy ak sa doom sëy ak sa wal iyaazu billah nit ku sëy ak way juróom wu jigéen def ay talaasim yoo xam ni gayru arabiya kenn xamu ko loolu nag seytaane daal day defal li nga bëgg nag loolu moo lay wan léegi loolu moo lay wan loolu moo lay wan ni jinne du fekk ci yàlla naa dee seytaane as seytaan jinni maanaam jinni ji nga xam ni al jinni seytaan yi moom du la du la fekkel ci ci yàlla naa déedéet daf lay da fokk nga defal ko li bëgg noo gën a defe ak kéeféer rek nag moom muy gën a muy gën a kontaan di gën a day gaaw ci defal li nga bëgg koo bëgg a rey koo bëgg a feebarloo koo bëgg a def lu ne maanaam donc koo ba yow daal defal ay kufri yar rek léegi nag njabarkat bi boo dee jàkkanamam ci saase rek da gis ni kii zulmatul kufri moom mooy moom mooy moom mooy ñëw ci kanam da ngay gis ni kii ku la zul maanaam lëndëmu kéeféer lay rango foo ko fekk mun nay sangu ba set na nga gis kanam gi set de waaye lëndëmu kéeféer maanaam wi yan day nekk ci kii dafay mel ni maanaam lu lu bon lay doon léegi nag day nekk léegi nag sëy léegi nag jeex na jaay nga bu sa bopp seytaane léegi nag seytaane dangay fekk ni ki ki nga xam ne moom mooy moom moo ànd ak njabarkat bi dootul dundati dund gu neex lu tax ndaxte dundam mi condition dundam mi aji ci condition seytaane seytaane li mu bëgg boo ay gis nag lu ne ma ngi koy def nag ma ngay rey kee ma ngay feebarloo kee ma ngay defloo kee ma ngay def lépp waaye moom dund ko bon yàlla nee na wa man arada an dicri fa inna lahu maicatan dankan wa naxsuruhu yowma alqiyamati ama képp koo xam da nga bàyyi fa alquran bàyyi fa sharia naan da ngay toog seytaane dund gu xat la la yàlla def loolu parce que maanaam da ngay gis ni doo nelaw nelaw yu baax boo moytu muy lor sa doom njabarkat yi foo leen fekk ñu ci bëree bëri surtout ñu mag ñi seen doom yi da ngay gis ñu ci ku ci deeg léegi ku ci dof léegi ku ci feebar feebar yu bon parce que parce que sa dund nekkatul yow dafa sa dund defatoo ko ci ci ci ci dundatoo ci leerul islam yaa ngay dund ci lëndëmuk seytaane léegi la bu ko defee nag sa alaaqa sa sa sa sa relation ak seytaane daal di daal di dëgër ndaxte ndaxte gis nga jinne ak njabar ñaar yooyu te mooy jinne seytaan yi laa wax foo leen fekk dañuy lëkkaloo ay xarit la ñuy doon ay xarit la ñuy doon moo tax da ngay dégg yàlla ni wa yawma yaxsuruhum jamian ya maachara al jinni qad istakfartum min al ins wa qaala awliyaauhum min al ins ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال يا رباني النار مثواكم خالدين فيها النار مثواكم خالدين فيها جزاء بما كانوا يكسبون لجي يا ني وخ مانيبلاشن بين خلي مملة ne moom la يعني la seytaane def nit من yàlla يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فسا داني دم با ليو فاي وقتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بوني بوتي اوخر دا انا اعوذ بالسيد هذا الوادي من شر الوادي لون غاي واخ ماغي مس تبوكو واخي نك ماغي مس ماغي نيام كليفك xur wi nga xam ne mooy jinne ji maa maa ngi daw ci moom mbiru musulma mbonuk li fi nekk boobaa jinne ji danaan fii nag bu ko kenn bu kenn la fi kenn boo kenn laal da ngay tëdd nelaw ba son ba ba ba yendoor jóg dem sa yoon day kontaan bu boobaa yow boo na def da nga koy gën a gëm yàlla moom da nga koy fàtte moo tax yàlla ni innama yuridu shaytaanu an yuqia baynakum al adawata wal bagdaa fi al xamri wal maysiri ويصدكم عن ذكر الله وعن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون مانام سان موي يالا لوم گنا باري رك ياو شيطاني دي گنا افانسي موتاخ يالا ني يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان بلين توب يونو شيطاني بلين كو ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر من قال گيس نيت كي ني muy solu di dama ko dikk fekk maanaam alfahsha wal munkar dong lay lay lay lay dunde yow nag day gis kuur sa muy weer ñu leen di wane ci télé yi di di di seen ay numéro téléphone ñuy xool di kii xëy na ñenn ñi ay naxaate lañ ne dañuy naxaat mais ñenn ñi dañuy dem xaritoog seytaane dañ xaar dañ dañ ñenn ñi dañ xaar seytaane léegi nag bu boobaa nag légui bu boba yow mi jëlon sa bop jay seytaane xamal ni seytaane mom baba ba àddunay tukki jeexna motax yàlla ni waman ya'shu an zikri rahman waman ya'shu an zikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum an as-sabil ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا وصلنا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين يعني لم سن خروب ما تنجين خروب ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون لكن آه بكهنا لورو دفعي أم يا الله يتقو ñi nga xam ne ñoom ñoo doon ñooy ñooy ñooy taati as-sihr ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy dëkk ci njabar yi te nag dina ñëw ci ci yaakaar naa Cheikh Jibril bëgg naa laaj na ci anwaa'u njabar bokk maanaam wa laqad alimu laman ishtaraahu ma lahu fi l axirati min xalaaq wa la bisa ma sharaw bihi anfusahum لو كانوا يعلمون يعني جبر كدي خمنا مني كيف كو خمي دا جن جبر نجا جندي كو دين الاسلام نرى لير في الاخره امو فا جنو كير بو دون فاي ام بالله ولا بئس ما شر به انفسهم لن جندي الاخره مو بون لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا lamasuubatun min indillahi xayrun law kan yàlla buñ gëmoon yàlla ragal yàlla loolu moo leen tuyaaba ju jóge ci yàlla la leen yàlla teraanga ba leen yàlla defal moo gën fuuf léegi lii nan lañ koy nan lañ koy aaya bari na lool buy ñëw di dajji njabar xam waxoon naa démb ma ni njabar yu bon yi bokk na ci li tax lislaam yow di ko dajji lislaam bokk na ci li muy dajj si di ko sànni mooy mbirum njabar di njabar yi moo tax doo gis mag ñi fi nekkoon doo gis ñu en tout cas Seydina Abbas de loolu maanaam ay ay ay turak yi jinne mus koo xam sax mus sa soxlaal jinne yi dara kon euh, lii daal lenn la ci euh, tontu laaju Cheikh Jibril sa laaj bi kon ñu xaaral ci yéen laaj wallahu aalam waaw kay allah imaam ci taqadim bu am solo bi su ko defee imaam ñu dugal euh, benn beneen laaj bu njëkk bi Abubakar Njàll moo doon téere borom cër waaw téere borom cër bi ci téere bi dafa ñu ci xam ni dañ ko takk dañ ko njibar léegi mu bëgg a dindi njibar nu muy def na bind li ilaati fukki yoon la mu bind ko fukki yoon la xalku samawati wala abdi laa bëgg a wax euh, ila laa yaalamun fukki yoon mu boole ci bi nii xaati xawaat ñaari xawaatim yi benn rek la ci tànn waaw benn la euh, mu def ko ci ci mbaytu mu boole mu boole ko nag mu bindoon te ko saafara ci naan ci diw insha bu ko defee lépp lu nekkoon ci yaramam ci ay jibar ak yooyu yëpp kattan ñu suñu borom dana jël aywa imam bu ko defee suñu déggoo audio bi bu baax baax laaj bi ñu am fii mooy koo xam dañ koo njabar ndax l'islam may na ko mi wax bindu de gannaaw gi nga boole ko ak yi ñu wax nga di ko ko diwoo ndax système bi doxalin bii nii ci audio bi ndax loolu lislaam nangu na ko pour ñu dindee ko njabar ak ki njabar sax ana lan mooy wane ne ban firnde mooy wane ne kii dañ koo njabar ak bu leere ne dañ koo njabar ndax doxalin bii nii lislaam nangu na ko pour ñu dindee ko njabar wa barakallahu fiik waa euh, Cheikh Jibril comme li Cheikh Moussa fi wax mom la wax an nushra mom la wax an nushratu ndax bu fekk da nga jël alquran al karim associé ko leneen xam nga naan dégg naa mën nga jël xaatim bi def ci alquran nga bind ko boole ko xaatim xam nga xaatim du alquran kooku mën ak yow ñoo ci du alquran que déchiffré yii moom amul ci l'islam jël chiffre daan daan mooy alquran wallahi alladi la hu du alquran kon alquran ak leneen lañ la la la ñuy def kon alquran moom dem na yoonam comme nag xam nga ñàkk a wóolu alqur ndaxte alquran dong doyul xam nga tey ji Moussa si ku ñu ko ah yow léegi léegi li li ilaaf donc bi moom dong def naa la déedéet foog nga boole ko nangam associé ko leneen maanaam dèjà alquran moom wóolootoo ko parce que parce que doylu ànd ak li yàlla wax ci alquran lépp wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin déedéet waaye loolu doyul foog ñu def ci xaatim loolu nag mooy an nushra nushra nag laaj nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam عن النصرة فقال هي من عمل الشيطان حديث الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم بسند جيد بسند جيد مويلا آه، موي السحر بالسحر بس كلين نوع من أنواع السحر معنى فك السحر بالسحر نجبر جبكو دنديك جبر فوق لي أنت على سلامي من عمل الشيطان من عمل الشيطان Euh, léegi nag lii nga xam ni moom la fi yonent bi bàyyi ñu koy ñu koy dindee ku njabar ñu koy dindee ku ñu njabar ñun bàyyi nañ ko fi dem suñu yoon dem wuti loo xam ni lu ñu seytaanee digal ñu boole kooku loo xam seytaan daf ñu koy digal ñu jëm ñu ñëw pour dindi ci njabar xam nga xam nga njabar lan la jinne ji mooy jinne ji ju mag ji mooy yónni jinne ju ndaw ji xiirtal ko ci nit kookee mu dugg ci moom bu fekkee ci njabar ci xel mi daal di manipuler xel mi cerveau bi kañ lay génn buñ ko joxee ndigal mu génn pour nga jox ko ndigal nag jinne ji day bëgg nga def loo xam ne bokkaale daf cee am jël alquran nga boole kook leneen ak leneen ak leneen ba loola nekk ab shirk nga sangoo ko léegi nag loolu daal di génn déedéet du jàggi ni alquranul karim do ndaxte alquran ba nga ko boole leneen rek ba nga bindi ab xaatim rek la la la barke alquran ja génn lu tax léegi la ngay def nag ba ba jinne ja génn parce que jinne ji li bëgg mooy nga def yëfu bokkaay rek boo def yëfu bokkaay mu daal mu muy si li nga bëgg wante bu fekkente bu fekkente doole yi alquran dëgg nga soxla kon bu boobaa alquran kese mooy ñëw faagaagal njabar ci te loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam wallahi bàyyi na ko fi ñu koy utiliser fuñ ko utiliser ku ko gëm dëgg mu gëm gëm ko sa xol bi boo ko utiliser mu génne njabar gi toj ko yàq ko ci saasi waaye seytaan day fexe ba nga jël alquran bi kooje koog leneen lu dul alquran nga nga shirke ko alquran moom boo ko bindee boole ci lu dul alquran rek shi maanaam associé nga bokkaale nga yàlla ak leneen ndax xaatim bi du len ni yonent bi xaatim bi du len ni alquran xaatim bi du len ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du lenn kenn ci yonent bi du len ni kenn ci nit ñu baax yépp nag du ci saxaaba yi du ci taabiin دوتي أتباع التابعين لين كل لم لين لف لين لو لين نجيل كو بوالي كو القرآن منك شرك شرك يا بان كو كو جفن جوكو سيطان هذا سيوزي مي دو بروبليم كي نجبر جاب مدن واي بروبليم اتليزي لو خمني لو فيان تي بايلا امول لين لو خمني نجبر موم لا ني اتليزي pour dindi njabar ludul ni yaronte sallallahu alayhi wasallam bayyi lu gën loola foofu luñ mën a dinañ jabar kon lii alquran ak sunna dañ koo taxañ ba mu taxañ sànni ko ca mbalit ma lenn lu lu ci lislaam wallahu alam ok macha allah imam boo jullee bu ñu fàtte ci ñaan yi su ko defee ñu dugal beneen laaj boo xam ne du sore ak bii ñaareelu baytu bi wala ñaareelu baabu laa doon wax bandi ma ñaareelu nga xam ni dafa nga xam ni dafa bëgg am eh, uwatu zakat nga bind saar ba mu def ko ci biir saafara ji mu fay xam nga boo tàngee bu tàng ko ba mu tàng bandi ma ak wolof bi moom biir ci man loolu pour wax wolof waaw dafay tàngal eh, paaka bi ba mu xonq mu def ko ci saafara ji mu fayee ko saafara ji mu ci naan mu ñetti fan bu ko defee incha allah dana gis ci kattan suñu borom lu yéeme ci wàllu quwwatu zakar ñetteelu baabu bi mu ni képp ki xam ni dafa bëgg fatful arzaq fidda wa zahab wa kulli shay'in lépp loo lépp loo soxla rek da ngay bind saar bi juróom-ñaari fukki yoon inna hada la risquna ma lahu min nafat juróom-ñaar fukki yoon ànd ak murabba bi waaw murabba bi ñu doon wax léegi ma yónnee bi nii nga boole ko ci murabba bi nga jël sa ko lépp wala nga bañ ko xisaab bi rek ci bàccu xaalis ñaari xawaat ci mel boo jël rek baax na ngay nga jël parfum sans alcool nga def ko ci ji di ci jiw incha allah ba juróom-ñaar fan wala juróom-ñeenti fan wala weer yaakaar. vraiment. waaw kay ko defee imam waaw Cheikh Jibril kayfiya bi tamit comme ni ñu ko waxee rek kayfiyatun laa asla laha fi shariatina alxarra kayfiya la boo xam ni amul cosaan alquranul karim premièrement comme loolu moo wax quwatu azzakar mu ni nga xam ni lépp wàllu wàllu wàllu duñ la doo dégg mukk ñu ne lii boo ko defee sa gëm yàlla dana yokk da nga mokk alquran wala sa jëfe alquran dana yokk déedéet yu mel nii te tamit xam nga jël alquran bind ko moo xam lim ba nga koy bind bo jël saafara boole ko paaka paaka bu xonk yaa ngi dégg xam nga dootul ni alquran jëy tasir de parce que alquran yonent bi sal euh, yàlla subhaanahu wa taala wax na ko ci xadis xadis bu qudsi nee na ku ma bokkaaleeg lenn ma bàyyi ko ma bokkaaleeg lenn ma bàyyi ko bokkaaleem yaa ngi faj bu fekkonte ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax lii daan ni nga jël paaka tàngal ko def nga xam ni noonu la ko waxee kon noonu lañ koy def wante paj mii Musaa wax du alquran du sunna du waxu saxaabi du waxu taabi du waxu maanaam boroom xam-xam yii boroom xam-xamu lislaam yi du seen wax léegi nag benn waay mooy mooy mooy mooy mooy mooy benn mbir rek jël paaka tàngal boole kook euh, euh, saar nangam bu jëlee saar bi def li loolu dama ni du ab kayfiya manam du kay du ñaan du dara du ñaan du dara ndaxte première premièrement da nga jël alquran yi nga boole ko khatim boole ko sa ni paka paka bi lu ci yonam khatim bi lu ci yonam associé boobu gis nga ci ko xam nga psychologiquement tey jii lii bu ñu la ko defalon tay ji nga daal di jékk ba nga nga sa bop da nga nan ah li kat jeriñ na dedet yow ya def pas-pas sa pas-pasu bop ni li lan la jeriñ القران جي سي نيك نك دنجكو اسوسيي اك بوكالي بي دنجكو اسوسيي خاتم نكا نونو لمن ان هذا لرزقنا ما له من نفاق ما انها ان هذا لرزقنا ما له من نفاق يلا وخل لول ادني تخو ما ان هذا لرزقنا ما له من نفاق لور يلا وخ جوج مو خينا باتو رزق بيم تود رك وانت كوكو نعيم الجنه لك يلا جوج بدليل ما له من نفر موي موي نعيم برول جيخ موي نعيم الجنه تا اي بوسر لو فم كوماسي فم كوماسي يلا نجي واخ ا آه، كي يونتان بي إيه، وانهم عندنا لمن المصطفى الاحياء واذكر اسماعيل وادريس وذل واسماعيل واليسع وذل الكفل وكل من الاحياء هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب ما لمتب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أطراق هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفق لأجل أجل يوفف jotewul dara درأك mbirum àddina رزق الدنيا déedéet رزق risque janna la yàlla نجل wax léegi nga jël bolé ko khatim, mani lolu wallahi alazim associé la da nga jël khatim bok bokalé ko alquran yalla subhanahu wa taala boko dé ñaan da doo ko ñaan ci meram do ko ñaan ci mer manam do do set sanjam ak meram nga ñaan ko ci dang koy ñaan ci ak contentem dang koy ñaan ci ngeureumum ci lam geureum waye do ko ñaan ci lam rubbu do ko ñaan ci boko doko ñanti boko lolu boko bëgge def boko bëgge def jibril jom mi nga xamni jamb faqir la ci yalla subhanahu wa ta'ala عبد ضعيف فقير الى الله عز وجل بوكو بغي ديف داي باج بوما لا بغي جبريل دما بغي سي تليفون بوم bu ma bëggee jibril Diop may ma may ma may ma téléphone dama ko damay seet jibril jibril tur ba mu gën a bëgg ma ma ma ma woowee ko ko ma seet yoon wam gën a yoon wa gën a neex ma waxe ko ko ci waxin wa gën a neex ma waxe ko ko ndax mu jox ma ko yàlla kooku ndegam jaamu yàlla nga koy def yaa ngi dégg muy kontaan waxuma ki nga xam ne moo bind jaam yi te mooy yàlla subhanahu wa taala sut na yàlla nga xam ud'u rabbakum tadarruan wa xufyatan innahu laa yuhibbu almu'tadin lii nag ictidaa fi duaa parce que mënumaa ñaan yàlla di ñaan yàlla am tariqi shirki ñaan yàlla di ko di ko ñëw ci di ko di ko di ko jaarale ci njabar nga yaakaar ni ko yàlla yàlla dana la ko may du la may dara léegi istidraaj mën naa am bu ma jëfandikoo bokkaare njabar di ñaan yàlla bu bu ma gisee loolu jàpp bul jàpp ni yàlla ma ko may de yàlla nee na أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون yàlla ne ndax ñooñu da ngaa yaakaar ne li ma leen di jox ci ay alal yaa ngi dégg di defar seen mbir damay damay njëkkantee ñoom pour pour pour defal leen yiw déedéet ñoom yëguñu ko yëguñu yëguñu yëguñu nii loolu ay istidrajaat la istidrajaat loolu ay istidrajaat la moo tax yàlla boo koy ñaan da nga ñaan ci ngërëmam waaye doo ko ñaan ci sànjeem doo ko ñaan ci ci meram ud'u rabbakum tadarruan wa xufyatan lu ci teg innahu la yuhibbu almu'tadin innahu la yuhibbu almu'tadin mooy al i'tida fi lii bokk na ci jalgat ci kenn du ñaane yàlla kenn du jël xaatim déchiffré xaw ma lan ak lan lan boole koog aaya alquran xaw ma ak saar xaw jàpp ni boo ko defee te nag boo seetloo amul benn njabarkat bu lay njabaral boo xam def naa la sa gëm yàlla day gën a yokk sa ragal yàlla day gën a yokk sa xam-xamu diine day gën a yokk yëpp mbirum àddina ku bëgg wërsëg ku bëgg ku bëgg a jot place de ku bëgg jabar ku bëgg a jot ku bëgg jigéen bëgg bëgg ku bëgg nangam ku bëgg maanaam sa jabar dara ku bëgg nangam ku bëgg lépp xosaamu dunia adduna bii nga xam ne yàlla dafa ni wama alxayaatu dunia illa mataau lxurur léegi nag mawaadiu sixr yëpp ñii nga kayfiyaat yi ñuy joxe yëpp loolu lépp pour nga am mataau lxurur donc pour nga am mataau lxurur li ajli lxusuli ala mataai lxurur la la la li ajli lxusuli ala rida rida allahi azza wa jalla moo lay wandi ba pare nag da nga ci xam nga léegi nga ñaan yàlla àddina yiw ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وهي الدنيا حسنة دونك كيف كيف كذا ما تخيلني فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا كذا ومن له في الآخرة من خلاق بس كيو أدنا غيان كيف يا دي غيني غيس ييب تي نجبر كدي دي دي utiliser lépp mbirum am am àddina la boo defee nii daga am mbooloo boo defee ni jigéen yi da nga topp boo defee nii da am alal boo defee nii da nekk directeur boo defee nii place bi ñuy xëccoo nga ko am boo defee nii nangam lépp ci wàllu at waaye da ragal yàlla doo ko dégg da nga gën a mokkal alquran doo ko dégg da nga gën da nga da nga gën a sóobu ci diine ji doo ko dégg abadan moo tax yàlla ni ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون والله أعلم gannaaw boo jullee ba ñëw laaj bi ñu am fii mooy naka nga gisee it ñu ne suñu bindee soratu Quraysh xam naa moom sonn na saar bu sonn la suñ ko bindee jël paaka tàngal ko ba mu tàng def ko ci ak ni sëriñ bi waxee ko Euh, ba noppi di ko naan naa tàngooru paaka boobu xumaat boobu est-ce naan ko sax baax na di ko naan dafay dolli kàttanu góor classe ak mbay wadd gi da loolu dafa baax ci seen biir néegu sëy loolu it naka nga ko gisee beneen bi mooy ku bëgg wërsëg nee na su fekkee ne danga bëgg wërsëg tamit dangay bind saar bi nangam de yoon boole ko xaatim tamit Euh, di faral di ko jëfandikoo juróom-ñaari fan wala juróom-ñeent wala weer loolu tamit bëgg nañoo xam ndax lislaam wax na ci dara wala déet ak ndax loolu dafay indi wërsëg ndax loolu dafay ubbi buntu wërsëg lislaam wax na ci dara ndax yonent bi alei salaam junj na ko jàngale na ko ndax alquran jàngale na ko wala déet bu fekkee alquran jàngale wu ko naka nga gisee timit lii nga xamante ni bi mooy bindu xurey si ay yoon boole ko ak xaatim ak nangam boole ko ak di ko jëfandikoo pour bëgg yàlla may la wërsëg wa barakallahu fiik waaw Cheikh Jibril yaakaar naa laaj bi toon naa ko mooy gis nga ku tënkuwul ci alquran wa man arad yàlla ne wa an zikri fa inna lahu maishatan wallahi dund gu bon ngay dund la fekk nag ay ay ay ay ay dund gu xar ngay dund gu soof dund goo xam ni yow ci bopp boo sañoon maanaam dund gu bon ku la gis yaakaar ni yaa ngi dund dund gu neex dund gu bon non seulement boo ci boo ci tuubul moom dee gu bon ngay dee kooku dama ko jëlal ku ci tuubul ba dee ci dee dee bon la gaa waaye dama la sa àddina ci bopp moo dul neex àddina bi moo dul neex lu tax ndaxte da nga faa bàyyi yàlla subhanahu wa taala dem topp seytaane yàlla boole la ak ab seytaane nga nekk ak moom mu lay dindal dund gu xat maïshatan bankar am nañu ko firi ci biir bàmmeel bàmmeel bu bàmmeel dund gu xat ci barsax ngay ngay am ñaar mën naa firi ñaar yëpp jël ab paaka bu xomaat tàngal ndox sóob ko ci biir nga naan ndox mi léegi nag nga associé koog li laa Quraysh du ni li ilaafi Quraysh nga wóolu de déedéet waaye paaka ba muy àndal ndax fe boo defee ba pare te amoo paakaam amoo paaka boo ko defee amoo xaatim bi doo ko def parce que wóoluwoo ko ñàkk a wóolu alquran mooy waxi lan ñàkk a wóolu alquran la mooy waxi lan sëñ bi gis nga ku bëgg a noppalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na fi ay ñaan amul lenn la ngay boo commencé boo yeewoo gis nga nit ki buy buy laram waxuma la bu yeewu avant mu yeewu laa même buy wëlbatiku muy wëlbatiku yonent bi am na lu mu lay wax loo boo yiwoogul boo yiwoogul boo jógagul sa kaw am na lu la yonent bi di wax loo ni ni mën wax ko boo yeewoo ba toog am na loo war a wax boo jóg boo avant ngay jóg booy sol sa daal am na loo war a wax booy dem ca wanag wa ban tànk ngay jiital am na loo war a wax boo demee ba àgg nga jàpp boo paree boo boo paree ba génn booy génn am na loo war a wax am na tànk booy jiital boo demee nga julli loolu sa journée bi yëpp yonent bi day topp yow day dem ak yow day dem ak yow ba ba ngay tëdd ci guddi gi ku ku nekk maanaam ku jànkonteeg lii lan ngay soxla ci sixriyaat yi kufriyaat dalaaliyaat shirkiyaat loo loo ci soxla doo ko soxla waaye ñun ñoo fi bàyyi alquran ñun ñoo fi bàyyi lislaam daal di ah ñun daal yàlla wóoluwuñ ko wóolu te koo ni ci yàlla mun na ah kay man yàlla yàlla ñaan yàlla nga ñaan ni nga koy ñaan ñii nga Boy Niang ay ndox mu tàng jël paaka teg yi jël xaatim xaatim ko jël sa alquran boole koog muy ab shirk bu waabix bu leer nañ nga yaakaar yaa ngi ci yaa ngi ci ku ko def yaa ngi ci lëndëm këriis zulumaatun ba'duha fawqa ba'din ida axraja yadahu lam yakad yaraha yàlla nee na wa man lam wa man lam yajcal illahu lahu nuuran fama lahu min nuur fama lahu min nuur لي مساسي سما خريج لا ما كبغلا ملي احبه والحق والحق احب الي مساسي احبه كبغلا جامبار لا دغ يالا بما سين غيس كو نيوكو واي مان دو مساسي لا وخم علم بي في اندي علم بي كبب علم بي لا وخ تبالله الذي لا اله الا هو اني لكم لمن الناصحين دما لي نصيحه والله الذي لا اله الا هو كم دو نيك يي بجين ادي تخ ابدا والله عظيم قواتل بالله الذي لا اله الا هو كين دوكو نيك با جيمنيكو ادنا دي فخه دو تا با دو يوم القيامه لوتخ باسكو دان فا باي القران عدم الثقه بالله عز وجل كوكو ديف رك تيغو nga ci yoonu kufur di den nak xamona fo jëm te li nak moy adamu thiqa ñak wolu yalla subhanahu wa ta'ala amul lenn lo xamni motax da ay tiit heure guddeeg tiit guddi ngay yu kenn xamul duñ nelaw nelaw yu baax duñ def lu baax te foo wax mu ne maa ko essayé sëñ bi tey ngaa essayé wàllu alquran nga xool ñëwal nga essayé alquran ñëwal nga essayé njàngalam yonent bi sallallahu alayhi sunnaam fi mu ci gis nga sunna mbaa sunna mbaa sonn waaw kay imaam macha allah barakallahu fika ci leralé xamna yu melni ci waxtanu sëriñ mosa bi bari na bokk na ci sax mo wax nit ki bo beugé sul wax wala ken dotul waxati da ngay jël xair 313 ay nga for ay xair ba ma 313 nga gas ben xam kambu bu xoot nga tok tim kambu gi di jang suratu quraish wa pare ëf ci xair bi sànni ci bir kambu gi ba ma 313 bo pare nga sul kambu gi wax jooja nee na jeex na kenn dootu ci wax fofu nag xamna lima ci wax moy lolu xawma ban waxtu euh, la nit ki di am jot pour def ko ndax tok tim kambu wara jang 313 suratu cent tim kambu di jang par ben di sanni dama xamul lolu ban waxtu dañ ko wara def ndax bo bo commencé tusbaar bala ngaa pare takkusaan jot xana da nga julli ji boo commencé takkusaan bala ngaa pare timis jot digënd timi sa gee xaju fi xana ku julli gee ba pare it da nga nafi la bo commencé boo moytuwul bala nga pare fajar jot waxtu julli fajar jot xana ku xey da nga liggéey lolu ku ko bëggona def sax man waxtu bo koy def moy sama problème imam ñu ñëw ci benen laaj waaw xam nga comme eh, cheikh jibril comme li wax ni xam nga léeg da ngay dégg ñu naan diw kat boo boo bëggee maanaam ku bëgg a tooñ benn waay dafa génn àddina bàyyi alal léegi taaw bi bëgg bëgg a ci alal ji dem ba ci am njabarkat ni ko léegi da dangaa dama def benn affaire boo xam ni daa bëgg nga defal ma ko loo xam ni boo ko defee bu ko defee kenn du ci wax xam nga kooku moom ma ngay tooñ ma waatal la wallahi alladi la ilaha illa hu alquran kenn du ci lore nit القرآن دو أندك يوم غي توج لكن الله يالدي وحني يالني أنا إن إنه لا يحب الظالمين إنه لا يحب الظالمين يالا سبحانه وتعالى بقلني توج وليك كي إنك خمد في لا بتشكل وحدي بس كت بس كت بس كت نسكي ده أندنك تي بس كده عارف أن تي بني بني بني بني بني كي وحدي لكن ñun la jàngal li ila fi quraysh 313 buñ kenn wax lii tamit دار بشو دفق والله العظيم لطخ بسك دفاي كونترانتك القرآن نحس دفاي كونترانتك القرآن الكريم دفاي كونترانتك القرآن والله العظيم نحس ليك بسكن تاني بسكن تاني نجير ما لر لمن دما يجانج القرآن لر ما يوخي لك ديريت دما يجانج القرآن نجير على الجين غاخد مومن شيخ كن بجي واحد القرآن كن لكن جباري القرآن كن لكن جباري alquran kenn du def ci alquran loo xam ni xanaa nga nga xanaa nga def ci alquran ji nga nga nga nga nga nga nga ñakkel ñàkkeel kersa alquran nga nga nga def ko nga def lu ñaaw ci alquran bu ko defee jinne ji kontaan yaa ngi dégg dimbali la ci loolu jinne ji dim jinne mën naa dugg ci nit fexe ba dugg ci cerveau bi yaa ngi dégg fexe ba doo ba ba ba ba du di ko dévier ba du wax ba du wax ci nit loolu mën naa nekk nga xam ni da koy israel ci boppam bis bu nekk waaye alquran ju set wecc nga jàng sut nag li ilaafi quraysh sut nag li ilaafi quraysh ilaafihim rixlata alchitaai walsayf falyacbudu rabba hada albayt xam nga fal ya xam nga li ilaaf ba fii du ñaa léegi alladi ataamahum min juuin kookoy kookoy xéewal la wa amanahum min xawf léegi nan la ñuy jëlee saar boobu sécurité bi am ci saar bi yiw bi am ci saar bi alquran lépp ay sécurité yiw la أه، وانزلنا اليكم نورا مبينا لجي لو خمني نور مبين له قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين القران الكريم يعني ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم يوم غير لو خمني يهدي للتي هي هي اعوج لو ما يخلم القران الكريم كريم يالني ان هذا القران إن هذا القرآن يهدي للتي معنى القرآن bis bu nekk rek day jël nit ki di ko jubal di ko jëme fa nga xam ne mooy fu baax fa mooy fu jub mooy mooy mooy yoon wu jub mooy fu fu mooy maanaam mooy yoon wu jub mooy diine ji jub ji lépp lépp lu am léegi nag nga bëgg a def benn njabat boo xam nit ki nit ki door si wax <coughs> kon léegi la yàlla waxoon la yàlla waxoon da jàpp kon kon dafay leeral teggeeku la kon léegi foofu alquran nekkul yahdi lillati hiya aqwam déedéet moom kay lillati hiya azlam فاللول والله مستحيل في حق الله تعالى ما مستحيل يا الذي وهو جدا ابدا ما تهمني لي دودك والله دودك والله العظيم دودك بالله الذي لا اله الا هو دودك لوتخ نخت القران كين دوكو توني لودول بو لي اله في قريش دا فا ام نوكو واخي واخجو واخجو واخجو واخجو بون ولا nga bokale kok lenen kon ligi nak yaa ngi yaa ngi ci looju bokkaale waaye nekkatoo ci nekkatoo ci wàllu looju iman nekkatoo ci looju tawxid ci looju bokkaale bokkaale googu nag jële ji day day daal di kontaan nga yaakaar ni yàlla dafa laa nangul déedéet loolu nag ku ca dee ku ne wallahi te tuuboo ko safara nga jëm ndax yàlla ko subhanahu wa taala safara nga jëm te te te li lii àtte l'islam mooy xaddun darbatun bi sayf mooy darbatun bi sayf laaj bi ciy topp imaam dafa am ñu wax ne waaw lii nag moom mën mënta ñàkk ndax lu tax sax ñu nangul ko tubaab yi ndax tubaab yi bu sa bopp di métti ñu jox la per nga naan wala ñu jox la pikiir pikiir la sa bopp tene wala ñu xool la ne la yow il faut nga naan garab gi sàngam nangul nañ ko tubaab yi ba noppi nag bëgg koo bañal waa lislaam ñu ne daal kon lii kenn mënu koo bañ ndax boo bindee saar bi nangam boole ko cox wala boole ko xorom wala nga bind ko juróomi yoon boole ko xaatim naan ko di nga def nangam ak nangam imaam muqaarana boobu naka nga ko gisee muqaarana boobu dafa dafa mel ni nag muqaarana bi qawiyun jiddan ndax buñ ko bëggee nangul tubaab bi bañan ko ñii bëgg nañoo xam daal muqaarana bii nii naka la ko lislaam gisee wa barakallahu fiik وشاهد جبريل شاهد جبريل كم نروح مقارنة به مقارنة قوية ديريت بل مقارنة في غاية الفساد مقارنة في غاية الضعف مقارنة في غاية الغباء دو مقارنة دارة يولي والو باس باس لا يولي وقت والو wax ci لا يوقت pas-pas خمي تبابي دو loo xam ديري غرب yi du pas tubaab bi deful dara dafa yàlla yàlla jox na xam-xam wax dafa jël garab gii garab goo xam ne yàlla ko wàcce damaa dem jël ay garab ay loo xam ni ahsab la ahsab sa amul problème ma jël garabu garabu nangam garabu li garab ma jël rak ak dute ak nangam nangam boole leen ma boole ko jox la ma composé ko ba mu nekk comprimé kooku kay dama kooku kay kooku mais kooku lu duggul ci pas-pas lii ci pas-pas la xam nga lii ci aqida dem dem ca pharmacie ba jënd garab est ce que loo aqida la du aqida loolu loolu maanaam luñ luñ gis la mu leer nañ te loolu sax zanniyu subut la kooku zanniyu subut te te l'islam bi nga xam mooy l'islaamu dëggam qatiyu subut la bi aqidatihi wa amalihi wa sulukihi wa nahjihi bi kulli jawanibihi qatiyu qatiyu asubut kii nag garab ca pharmacie zanniyu subut lu tax ndax mën ngaa dem pharmacie kolox garab gi boo ko naanee wér ci saa si da nga koo yaakaar rek ram nga am ñaata nit ñoo naan garab garab gi rey leen ndax jigu leen ñaata nit ñoo naan garab du leen rey mais du leen faj du leen rey wante du leen faj waaye nag nit day naan garab ni ah lii kët naa ko naan wóolu naa ko jël garab gi naan jël garab gi waaye bu ko naanee mën naa tamit mën naa bañ tamit mën naa tane mën naa bañ tane lu tax ajuwul ci pas-pas ajuwul ci pas-pas déedéet ajuwul ci pas-pas maanaam tey jii buñ jëlee comprimé ñu la comprimé gii de boo ko naanee da nga gën a da nga gën a ragal yàlla da nga xam ko da ngay fen ndaxte kii doxul ci wàllu pas-pas li ñu dox ci wàllu ci wàllu amal jëf ñuy gis la ci wàllu ahsaab garab ñuy gis موتاخ طب الطب النبوي بوكو الطب آه، غير نبوي باسكو الطب النبوي اي اذكار اي اي نيام دا تي بري اك اي اعشاب اما الطب وخامي طب الطبي لي خامي طب لا نك خامي ميدسين لول بوكو بوكو بوكو كي كي باسباس لا يوخ كي واخو باسباس تبولي ما كان في الفارماسي سان بوب داي ميتي ma dem naan ak sëy aw ma yaqiin bu ma lii kat bu ma ko naanee wécc sax déedéet mën ko koo naan du la jëriñ dara mën nga naan du la jëriñ dara lu tax mën naa am tubaab bi tubaab bi tubaab bi mën naa am juum la mën naa am tubaab bi da koo defar nde ndeke ndeke day rayee te yëgut dara tubaab bi njortam la am rek essayé ko. ba ma ko essayé mu na mais dugul ci man ci wàllu pas-pas la ñuy wax ndaxte ahamu shay alaqida njabar ci li muy wax nii lépp affaire pas-pas la boo defee lii boo ko defee pare léegi kenn dootu ci wax xam nga loolu xam nga loolu amal amul foofu maanaam xam nga loolu njabar la mu leer nañ xam nga xoolal njabar ci ci borom xam-xam yu ko taarif uqadun wa ruxa yatakallamu bihi saaxiru أو يكتبه أو يتخيل أو, أو يتخيل له ما يؤثر جسمه في جسمه أو في قلبه أو في عقله أوكي دو بروبليمو لو خامني مانام لو خامني فيزيك ما لا خمغا فيزيك ما اك مورال ما تباب دو واخ يو سي مورال داي واخ يو سي فيزيك لي لا جسمي مي ني ام اعصاب ياغي ني جيل نان نما بوكلو cheptaana bayna maa baynahuma bu'dal mashriqayni bokkuñ sax kii pas-pas la kii leneen waaw kay imaam macha allah imaam dafa mel ni julli ci timis jot su ko defee dañuy teg fii sunu baaraam ba séddale ko ñaari jotaay jotaay bu mujj bi nag ñu ñëw ci euh, atte njabar rek Euh, ni ko lislaam gisee li lislaam jàngale ci yontu yàlla Suleymaan parce que foofu it bëgg naa ñu taxaw fi yontu yàlla Suleymaan ak euh, wax yooyu alquran wax ci am na lu ci gaa yi di wax euh, ak yi ci topp incha allah su ko defee waxtu julli bi jot na dajeeg ñu war a teg fii sunu loxo imam incha allah ñu séddale ko ñaari jotaay ñu def lii mu nekk jotaay bu njëkk bi